Happy birthday, Mr. President. Happy birthday, Mr. Damagi. Happy birthday to you. Sana helwa ya Jamil. Sana helwa ya Jamil. Sana helwa President Damagi. Sana